waa kooku Ngagne Sène Kaolack Moussa Diop Dakar Moussa Diop Dakar donc suñ ci paree plus de cent mille ak Adama koo yëpp booy jël doomu tàggu <laughs> waa mbokk yi dellusiwaat nañ ci final open bi encore Serigne Ndiaye ak Ngagne Sène ndeysaan Moussa Diop Dakar Ngagne Sène Kaolack Ngagne Sène ndaanaan la ci làmb waaye <laughs> ah du yomb de Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye la bëre naag léegi daan ko final individuel bi ñu fa xool fu ñuy jëm ñoom ñaar Serigne Ndiaye deux face ak Ngagne Sène arbitre bi sifflé na ñu ngi waat fii ci final open bi ndaysaan fii ci stade Ilimanel Fall bu Diourbel Ngagne Sène daw na jëli Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye xëcc na ko Ngagne bañ na Serigne Ndiaye koy bëgg a jaay doole wóorul Serigne Ndiaye ngañ seen surprise du am wala déet Serigne Ndiaye sëq sànni def ngañ seen doy bëre ñoom ñaar nee na dafa ritax nee na dafa ritax Serigne Ndiaye arbitre bi nee na xool nañ ngañ seen ba noppi da ngay da nga koo bëgg a jàpp ngay seen bañ nga ne daal di tax Serigne Ndiaye jëli na tànk ba da koy daan wala déet da koy daan ngeen bañ na waaye ngeen bañ na waay xale bëre waay ngeen seen Serigne Ndiaye ngeen seen Serigne Ndiaye est-ce que li Serigne di wax ne dafa di tax du dëgg wala déet mbokk yi yéen ci xam dara waaye ngeen seen daanaan la ci làmb xale la te mu ngi màgg. ku ko ci daanu ren doo ko daan déwén Serigne ngañ seen daaw doo jëli ko Serigne daa bëgg a forcer waaye Serigne benn bët gis beneen bët bi daa xaw a piita <laughs> waaye lamba gi ndaysaan sama papa As Birahim maa ngi lay bégee sama professeur sama conseil xoolal Gris Bordeaux ma nga la yegg mënatul taxaw. mënatul toog poulain mooy bëre Serigne Ndiaye ndeysaan Gris Bordeaux ma nga noonu jàkkaarloo ma Alaaji ah, ah, Amadou Kati Diop suñu papa ma toog moom it toog mënatul taxaw mooy entre Serigne Ndiaye mooy ku mel ni Moustapha Gueye lancé Tigre de Fass moom ma toog firi <laughs> xaw ma firi bi lan la am na lu xew wala déet ngañ sa bañ na Serigne mbot na ko tey lii la la laa ilaaha illallaah Serigne ngañ seen bañ na waaye félicitation ngañ macha allah ngañ seen Serigne Ndiaye da ko doon mbot Gris jug na naan ko ndànk waaye kii gisuloo giri may ko rek ndeysaan ngañ seen Serigne ndeysaan ngeen ngay way ngeen ngay way waaye lii laa bëgg ci xale nekk xale teew ta am jom nekk xale teew ta bëgg sport nekk xale teew ta xam li ngay def arbitre bi àtte na àtte na am na lu mu waxal Serigne Ndiaye Ngagne Sène Serigne Ndiaye 2 Ngagne Sène Serigne Ndiaye 2 arbitre bi nee na bëre leen bëre leen bëre leen taaba jeex na ndeysaan ngañ seen Serigne Ndiaye ngañ seen daanaan la waaw waaw waaw waaw ku ci nekk dem na ci kot sot ndeysaan Père Moustapha Gueye ma ngay wax ak Serigne Ndiaye 2 Kati ma ngay wax ak seen dem na ci entraîneur ba naan ndox dellu si ngañ seen mi champion waaw waaw ngañ champion de compétition moo garaaw rek ah tax ngañ sax da nangu Serigne Ndiaye yóbbu trois trophées yëpp ah ngañ day bañ de arbitre bi siflé waat na mbokk yi vingt-deuxième chef de l'État Diourbel du 6 au mars 2021 mbokk ah, dëkk bi neex na lamb ji wuy si na ngañ daw na jëli Serigne Ndiaye daa ubbi bëre bi ngañ seen ñëw ngañ seen Serigne du yomb ngañ seen Serigne Ndiaye ngañ seen Serigne Ndiaye daw na jëli tànk bi ngañ door na ndaysaan wala boog ci bërëb bi la bokk ngàdd la ndaysaan ngàdd la arbitre bi nee na bëre leen seen daw na jëli ko Serigne Ndiaye de ngañ seen ndaysaan ngañ seen Serigne Ndiaye de <laughs> waaye ngañ waaye waaye Serigne Ndiaye waaye ah munul yomb Ngagne Sène Serigne Ndiaye 2 Ngagne Sène Serigne final dañ koy jël waaw waaw avertissement avertissement Ngagne Sène am na ñaar Serigne Ndiaye am benn jaadu na jaadu na jaadu na su taaru jeexee Serigne Ndiaye 2 jox ndam su temps bi jeexee Serigne Ndiaye 2 la ñuy jox ndam Ngagne Sène Serigne Ndiaye 2 ñu ngi fii ci stade Ilimanène Fall bu Diourbel ndeysaan ñu ngi noonu Moustapha Gueye 2 dugg si na ci làmb takk sëru rabal bàkku ànd ak laasana loolu cosaan la gis nañ ci ku mel ni Aw Jaal làmb gi temps ba day waaj a jeex temps baa ngay waaj a jeex Serigne Ndiaye nu muy demee Dakar ak Kaolack Ndeysaan Serigne Ndiaye daa bëgg a jël Ngagne Ngagne bañ. ah ngañ bañal waaw bañal ngañ atu réer na atu feeñ na atu daan na daan nañ atu ngañ seen Serigne Ndiaye ñu bari jàpp na ni Serigne Ndiaye moo xaw a sàcc doole waaye ngañ daa bañ xale la nekk xale teew te am jom bëre fu koy def ak fayda ak jom ndaysaan bu ñu jugee fii ci finalu open bi dañuy dem ci troisième place ak quatrième place temps jeex na Serigne Ndiaye daan na am na ndam ndaysaan am na ndam Serigne Ndiaye jël na deuxième finale bi ndaysaan Serigne Ndiaye am na ndam mu des équipe mu des final équipe mu des final équipe Serigne Ndiaye jël na open xool équipe bi fu muy mujj waaw waaw.